bismillahi irrahmani irrahimi lii mooy téereb sëriñ abdurahman laxdari muy jàngale ci diine ak ci feq ci ngërëm imam malik yal na ko yàlla gërëm fii la téere bi tàmbale muxtasar lii ak gàttal la sayxi saydii abdirahmaani laxdari bàyyi ko ca sang ba ñuy wooye sëriñ lax laxdari fil hibaadaati ma ngay joxoñ nag xeeti jaamu hiinu yàlla ya la cay farata ak sunna ya alal masabil imaami malik ci masabu imaam malik nag ci lay wax ibnu anas kay doomi anas radiyallahu anhuma yal neen yàlla boole gërëm mook anas fii la téere bi tàmbalee bismillahi maa ngi tàmbalee ci yàlla rahmaani kay yërëm ak a xéewal ci àddina ña koy jaamu di ko sant di ko gërëm ak ña dul jaamu duñu ko sant duñu ko gërëm arrahiimi te nara yërëm ci àjjana ña ko doon jaamu doon ko sant doon ko gërëm yal ci yàlla boole amiin wasallallahu ala sayidina yal na yàlla dolli teraanga ak jàmm ca sunu sang ba muhammadin muhammad wa alihi àggale ko ca ñoñam wa sahbi ak i wasalama te mu dolli musal amiin yal na yàlla nangu alhamdu ak cant lillahi aji yeey la ñeel yàlla rabbil aalamiina kay boroom bindeef ya wasalaatu wasalaamu yal na yàlla dolli teraanga ak jàmm allah sayidina ca sunu sang muhammadin muhammad xaatimi nabiyiina kay aji mottali yonente ya wa imaamil mursaliina tey njiital mbooleem ñi sunu borom yónni awluma yajibu njaal bee nag la jëkk war alal mukallafi ci mukallaf tasaxiixu imaanihi ne wéral ak gëm yàllaam suma maxrifatu maa topp mu xam la nga xam ne yuslihu dina yéwénal bihi ak ngëm yàllaam farda ay nihi niki farataay jëmmam ka kaami salaati niki attey julli wa tahaarati ak attey laab wa siyaami ak attey koor wa yajibu war na mukallaf an yuhaafisa mu wattu allahu doodillaahi ci dëxali yàlla yi wa yaxi fa te mu taxaw jëfe inda amri yi ci ndigali yàlla yi wa nax yi te mu bàyyi ya sunu borom tere wa ya tooba te mu saxoo tuub ilallaahi jëm ci yàlla subaanoo tudd naa sellam nga moom sunu borom di ko jombale lépp lu yellul ci moom tuub googu nag na ko mukallaf def xabla an yasxata aley lu jiitu muy wàcc ci koom meram yàlla wa surootu tawbati sarti tuub nag na na julit bi rëccu allah ma faata ca la ko rawan te mu di ay bakkaar wa niyatu te mu yéene allah yahooda ba mu delloo ti mukk ila zanbin jëm ci ay wakkaar fii ma baqiya ca waxtu ya des min umurihi ci ak dundam wa an yatruka na bàyyi almasiyata mboolem xeeti mooy yàlla ya fi saxaatihaa ca saasaay saasa in njem njeem nekkoon na mutalaabisan di saxoo jëfe bihaa mooy yàlla ya wala yaxilu daganul lowoo ca mukallaf an yu wax xira muy yeexe a tawbata tuub ga wala yaqulu waruta wax naa toog nii rek parce que samay loxo bañ ata tuub ataa yahdiyani laahu ba yàlla baax loo ma ma ma baax fa innahu naka wax loolu min alaamati saqaayi bokk na ci màndargaay dem sawara muy texe yedi wal xislaani ak gecc gecc ak gàcce dañoo niroow tur waaye bokkuñu gàcce mën ngaa rectifiewaat dem liggéeyaat ba amaat lu la fajal gàcc waaye gecc nag yowmal xiyaam lay dale doomu aadama tiit jaaxle ñàkk te amatoo amatoo pexe